rafetlu bu baax bu baax atelier bi nga xamante ne ci lañ génnee li ko waraloon moo nekkoon waxtaanee lii nga xamante ne moom mooy mission wu euh, centre national euh, de la fonction publique locale de la formation euh, bi ñu waxtaanee ak acteurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq li nga xamante ne ñooy collectivité territoriale yi jot nañ ci taataan ay ay xalaat te loolu ci biir loolu it permettre nañu ñu mën a gis ni tey jii au delà de la fonction mooy li nga xamante moo tax a jóg euh, centre bi mooy accompagner leen ci wàllum renforcement de capacité mais du ñu yem ci loolu xaar nañ ci tamit pour que ñu gën leen a jàppale ci li nga xamante ne moom mooy xool personnel bi nga xamante moo nekk ci collectivité territoriale naka la ñuy def ba mën a xam ni kat ñii ay agent ci euh, agent la ñuy doon des ci fonction publique bi fonction publique locale bi ñi nga xamante ne tamit remplir woon critères yi ñu mën a xam ne ñii lañ ñu mën a am benn base bu baax a baax boo xamante ne dinañ ci mën a Euh, demee leneen li tamit mooy lan ñu fexe liggéey pour que lii di euh, application organigramme type yu collectivité territoriale yi ñu mën cee def euh, liggéey bu am solo parce que ci biir loolu rek la ñuy mën a fexe ba li nga xamante mooy réforme bi sur la fonction publique locale mën a mën a mën a atteindre objectif bi nga xamante moom lañ ciy xaar. ñëw fekk fi tey ci région bi le gouverneur de région mu ànd ak tous les acteurs territoriaux maire président du conseil service préfet sous-préfet. chef service technique euh, syndicat yeeg ñëpp ñu am ak jotaay boo xamante ne li ko tax jóg mooy nan la ñuy fexe ba li nga xamante ni bu doon garab gu taxaw la ñu ne danga koy daaneel baa nga yëkkati ko day yomb euh, bu doon euh, miir la bu taxaw na nañ ko nañ ko raax mën nañ ko tabax day yomb mais lii dafa aajo ci xel ak doxalin ak xam-xam ak jikko donc loolu moom lañuy wax c'est de li l'immatériel donc du liggéey bu yomb puisque du liggéey bu yomb nag bokk na ci li nga xamante ni ñëpp d'accord nañ ci tey ci àdduna bi kañ ko def bu ne na ko kaay waxtaanee ko jiitu dina gën a yombal defin ba tekkiwul na état xamul fu mu jëm wala amul gis-gis gis-gis bi leer na du loolu la ñuy waxtaanee dañ ko war a def pour doon njariñu askan bi mooy gis-gis bi collectivité territoriale comme beneen bànqaasu état warul nekk jumtukaay bu ñuy wutee lu neex ni ña fa ne mu jiitu ci soxlay askan bi loolu mooy mooy mooy gis-gis bi ndax bu fekkee da bëgg ay territoire yu viable compétitif et porteur de développement alal dañuy wut di ko fu dugal am na solo mais ña koy ña koy doxal aussi ci biir du yamul ca maire kese te maire fa gën a tuuti ndax agent yi léeg ñu mat ay lim yu takku kon ñooñu tamit seen àq ak seen yelleef ak seen nekkin dafa am solo bare na ay xalaat yu fi jub mais xalaat yi nga xam moo gën a tënku si ci région bi gis nañ ni euh, travailleurs yi bëgg nañu trop ñu gaaw tijjiwaat bunt yi pour ñi jotul woon dugg ci fonction publique locale ñu ñu dugg si muy lu légitime gis nañ ni tamit au delà même loolu problématique emploi local aussi posé nañ ko fi wante euh, li ñuy wax ni dafa am balaa ngay toppatoo luñ la dénkagul wala li nga mën a ji ne mën na bokk ci liñ la dénk da ngay réglé cëslaay yi lañ la dénk ba pare te ñun cëslaay yi lu ñu dénk mooy statut opérationnalisé fonction publique locale maanaam li nga xamante ni ñu bare dañu jàpp ni dafa war a nekk jëmm juy dox du ñu dox mais statut la bu war a correspondre à une réalité à un pour que liggéeykat bi nekk ci gox goxaan buy dugg ci ñu koy jël mu nekk fonctionnaire ñu xam chart yi bu ci nekkee ba bu mu ciy génn mu ànd seeg tawféex bu retraité ak jàmm ak salaam yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram mu mën a dund dund bu sell boo xam du dem ñu neen ko kenn seen dañ laa fàtte cotiser juróomi at yee am nga jafe-jafe noo jot sa àll traité wala nga feebar bëgg faju et cetera et cetera wala mu war a def ay avancement ci ay gradam ak ay carrière am du ko mën a def donc yooyu moom mooy li nga xamante ni moo wundu li tax sabab bi li président de la République taxawal li léegi nag loolu nag du liggéey bu yomb liggéey bi yombul mais euh, challenge la maanaam sas la parce que bu fekkee euh, état central benn nit mooy recruter ministre de la fonction publique bi ñu ko ko président délégué fii ah dafa am juróom benn téeméer ak benn juróom benn téeméer ak benn yu nga xam ku nekk employeur nga da nga war a recruter au sens du droit du travail mais dañ ko war a encadrer ndax ay bànqaas su nguur gi la ci encadrement boobu ku nekk xam na ni secteur bi am na lu ma ni politique ko rax sax wante képp ku yegg ci boppu mairie politique bokk na ci bunt bu bi la indi politique au sens noble ba tax na euh, lii buñ ko doxalee ni ko war a doxalee yàlla defal ñu sutura boobu ba léegi ñu jiital ci li ñu président sant mooy maandu bu mat sëkk ci doxalin bi pour que ñëpp yam ci ñu tëddee ci njaaxaanaay pour que képp ki nga xamante ne am na ay charte yu nekk ci réew charte dañ ko war a wekk ndax charte yi mooy tax euh, ki am droit dem ci circulation daw gauche bi dem droite bu charte amul ci dëkk ci àdduna dara du baax kon charte yooyu bokk na ci euh, booy jël nga bañ a jël rek pour jëlu yaama neex ak ndey dikkee comme ni jigéen ñi di wax boo ko jëlee jël boobu wax dëgg yàlla yaa ngi lor askan wi nga xam mooy jeexitalu la tax commune ba juddu wala conseil départemental ba taxaw. maintenant euh, audit bi nga xamante ni nag audit social li tax loolu di mën a kii mooy kumpa la biir gox yeeg goxaaña tey euh, kenn mënu la wax ñaata ñoo fay liggéey lu dul maire yi fa ne te état nag bu dee mooy ndeyu ñëpp mooy bàyyi ñëpp mooy waajuru ñëpp ci déggit bu buumu teengee da nga koy delloo ci bopp yëgu guy la suñu sëriñ bu baax bi daan wax kon loolu état dafay am solo mu xam ndax loolooy tax bu ëllëgee bu problème ne këtt ni jonn comme grève bi du du du du ma defal évaluation ma xam donc loolu la ñuy wax la démarche d'anticipation mooy li président privilégié su ko defee bu ñu defee audit social remettre les compteurs à zéro état dina xool yan possibilité la mën a def pour accélérer intégration bi nga xamante ni demandé woon nañ mais ñu teg ko ci ci lu xam yamale lay doon bu ñu paree ci loolu aussi dinañu mën a xam commune bi nga xamante ni yow sa employé dafa bare yaa ko recruté woon daañu la wax de fii de yoon la état mën na la ci accompagne nga wàññi leen ndax audit indépendant bu amee bu boobaa dañuy xam ni même grille bi la ñu appliqué ñëpp même critères yi amul man kese la wala du man kese beneen hypothèse bi mais bu fekkee yow da nga jël loo xam matul bu boobaa nga xam ko xam ni jumtukaay bi may na la nga jëlaat loo mottalee loo war a liggéeyale askan wi pas loo mottalee rek pour jël mais loo war a liggéeyale askan wi bu dee def ci yam képp nag mu témboo comme li olof yi di wax a ah, nga xam ni bu boobaa yow yaa ngi ci sart yaa ngi ci yoon donc da nekk exemple boo xam dañ ko war a encourager. waaw audit bi amoon na à peu près dix mille euh, un peu moins de onze mille agent en deux mille treize deux mille quatorze mais bi ñu ko euh, càmbaree jotaay bi. nga xamante ni gouvernement bi moo ko taxawaloon pour ñi fi fekkoon bañ ni leen yow def nga fi juróomi at fukki at léegi loi bu bees ñëw na rek mënatoo bokk ci dara ndax loolu àq lay doon te te saafara nag war te jur jàngoor moo tax mu def condition derogatoire yooyu ni ñi ñuy fekk pour bañ leen yoreel àq nañ leen may bunt bu ñu mën a duggee bu nga xamante ni bunt bu exceptionnel la ñu leen recevoir ah euh, am na à peu près dix mille bu ñu ko consolider ci fichier bu ñu jot mais ci fichier bu ñu jot bu amul acte ñun duñ ko jàppee comme fonctionnaire mi ngi mel ni rek nga ni nit docteur la wante xamoo école bu mu jàng xam nga kooku bu fajee mën naa def jiy loolu kese lañ koy lañ koy déggee kon ñun heure bi nga fichier nan bi ñu yoroon bi ñun un moins de trois mille légèrement moins de trois mille moo nekk suñu base de données ñooñu nag lañuy ñuy commencé liggéeyal xool seen ay droit seen transfèrement commencé def gestion du personnel administration du personnel di ci encadrer collectivité yi au fur à mesure képp ku ñëw indi sa àq ak sa yelleef wala sa sañ-sañ si processus bu mu mën a doon duñ la xañ sa àq ak sa sañ-sañ ak sa yelleef mais dans un horizon temporel parce que après loi bi mi ngi en vigueur contrat de droit privé yi nga xamante ni daaw na am tolérance sax dootul lu jaadu fonction publique locale la ñu wax territoriale la ñu wax da ngay nekk fonctionnaire wala agent non fonctionnaire mu jeex tàkk agent fonctionnaire yoon am na lu yoon bu mu wax ko agent non fonctionnaire mais lépp dafa war a tegu ci charte ak yoon yi nga xamante ni moom la moom la moom la loi bi nangu bu amul du mën a nekk donc du lu compliqué mais lu ñuy saytu la nit ñi comprendre ko ku ci dugg xam noo ci duggee ku ci génn aussi xam noo ciy génnee euh, mu nekk jariñu